fii ci diwaanu Mbour nekk na foo xamante ni bari na ñoo xamante daal bëgg nañu amu uh, changer ni nga xamante ni noonu la mel ba tax na rek nag jàpp nañ ne jamono jiñ toll ni bañ fa doxantoo da ngay nemmeeku ne ñu ci bari rek dañ koo def place wu gànnuwaay uh, bëy xar yi ak ñi nga xam ñooy samba boy yi di fa daje loolu nag askan wi nga xam ne ñoom ñoo dëkke uh, ci wet yi ñoom daal ñaawlu nañ ko bu baax a baax te sàkku nañu daal li nga xam ne mooy jardin public bi ñu defar ko ci anam yi gën a sell waaye nag lu ci manti amit li nga xamante ni mooy comportement askan wi jar na xoolaat ndaxte bari na ñoo xam ne ñoom ñoo fay teew waaye ñi ci ëpp rek ñoom ñooy yàq maanaam. ñenn ci askan wi jot nañu leen dékk sunu micro daal leen di laaj maanaam ñoom ban gis-gis la ñu am ci place publique bi lan lañ ci bëgg lan lañ ci namm. nit ñi ñoo fiy toog fii bu doon ni ku toog lekk li ngay lekk wala naan sa ndox jël yóbbu wala nga dugal ci mbuus boo demee ci poubelle dugal ci mais dañ koy jël sànni ci poubelle yi ci ci euh, ci canal place bi mom dañ ko wara gëna wagar parce que place bi yaatu na trop mais nak fi bu guddé bo ñëwé fi lu nek fi kay guddi gi mom moom mari de lëndëm na amul sécurité amul dara manam fi mom guddi ma mom moy waju lu la neex rek kenn ku ne lu la neex defal lolu mom defe naa maire bi sax war na ko xam. gaay yi dañuy tok di naan ñi di gess ñi di def lu leen neex jigen ñi fi da ngay romb fi sax ben jigen and ak doomam ju ndaw nan la mayma ma 200 mayma 100 francs euh. fi dal mom war nañoo seet sécurité bi mom bax mom mais suñ ko defaroon defar bu normal bu tol ko ay gardien surtout goudi nak da fay am day day désherbé ay doy war ñoo fi nekk mais sardin bu mel nii ko war a defal ko defar bu rafet dégg nga boo xamante ni ah ku ko gis rek kontaan ci. yenn say yi sardin day day yàq complètement gars da fay saw dégg nga dafay tour mbalit dégg nga ah mais soo ko defaree ba pare bàyyi noonu kooku lu lu du dem du lu xam nga yak rek parce que. su amul gardien dañu yàq laaj li ma la mën daan suñu ko defee woon moom baax na wutal ko gardien waaw dégg nga koñ bu nekk def ci kenn dégg nga de ku ku tuur la ñu jàpp la ku saw ñu jàpp la mais xool foo de fee da ay saw la dégg nga de fële mbalit mi dégg de nga ne nga jardin jardin public ah yow nga ne jardin public xam nga loolu jaarul yoon waaye nag changement de comportement baax na ci ndaxte am na ay doomu aadama yoo xamante ni lampadaire yi nekkoon ci kaw ñoom ñoo wekki lamp yi ba maanaam rek ab xott fa des loolu nag di lu ñaaw lu ci manti am ñi nga xam ñooy riverains yi daal maanaam ñi dëkk ci wet wi dëkk ci quartier Escale ak 11 novembre ñoom it am na ci ñoo xamante ni nee nañu dañuy jël seen mbalit guddi ñëw di ko tuur ci biir jardin public bi. jardin bi daal man li ma ci xam en tant que bëgg Rasulaay lu wax ma koy ci téere.

li fi nek kenn mënu ko wax de lu mbalit kessé loo yaakaar ci loo xam ne c'est anormal rek mu ci bisaa nee bi je crois que nag koy defar nag dafa dépenser ay junni yu toll nii ce n'est pas pour ça kon nak na am suivi. am nañ leen am nañ leen dëkk bi mi ngi nek ci ci ci ci dëkk bi vraiment tuutawul wa Mbour la vraiment place la boo xam ne c'est ñu ko placer ni c'est bien fait mais dafa am suivi. mais fu mu nek ni jardin toppatoo wuñ ko. jardin bi toppatoo ko parce que buñ ko toppatoo jardin bi du melni partout mbalit la dañuy fi di saw di def lu ne n'importe quel quoi waaw ba taxna fi maire bu amone euh, ko xamni ki man na defar mu defar waaw parce que tamu nañu jardin bu toll ni nek ci digg xol mbour te top toppatoo ko setal rek ni mu mel. fi guddi day doy waar trop parce que ñepp ngi fi da ngay gis goor jigéen ni di fi nek tamit guddi gi ay agresseur rek lepp fi nek ah gaay tam lan neex lañ fi def dañ fi saw ak lépp boo demee ba côté béné ay mbalit ak ay lepp lañ fa tour am sécurité bu baax bu nga tane lool non dañ ci mëna xex xeex ba mu jugee fi ba tax na ñu bari di sàkku it li nga xamanteni moy mooy euh, rek nak war fa mëna am donte police sax dina fay jaar waye nenañ rek nak doyul bes bu ne nga gis ño xamanteni ñoy borom ñaari tour yi dafa dajé nga gis ab talibé bu ñu def lu bon nga gis it manam doomu adama bu ñu agressé nga gis ñi di carte xaalis ku nekk dal di def lu la neex manam dafa melni dal sans loi la ku ci nekk dal ak li nga xam mom nga bëgg rawatina nag guddi gi bari na citoyen yo xamé dañuy daw nenañ dal wër ko leen gën jaar ci digg bi ndaxte lu ne rek gis nañ ko fa fi mom wax deug yalla dañ ko defone garage amone ay place nit ñi di ci daan seen doole mais liñ ko def ni nak wax deug yalla mom gis ñu ben rendement bu ñu indil wa yi fi jurna yu bari nit ñi xam nañ ko bu ñu sañon daal ñu éliminer ko délo ci fi ñi fi nekkon di ci daan seen doole war na am quoi mais sylvisure quoi c'est tout parce que gaay ñi saw fi mbalit mi ngi ni te place publique comme que place kay normalement def war set

poubelle bi kenn xamul lu muy nirool. boo ñëwee sax ngay da ngay noppal wala nga dox ba sonn sax da ngay seexloo sax toog ci genre. jamono ji ñu toll nii nag askan wi ñoom seen bopp daal nee nañu place publique bii rek moom moo fi des à boo xamante ni mën nañ fi ànd ak seen i doom ngir rek nag mën a doxantu waaye nag lañ fay fekk moo tax kenn ñemewu ko ba tax na daal ñoom ñoo ngi sàkku autorité yi ñu jël ci ay matukaay ci nu mu gën a gaawee ndaxte rek nag loolu nga xamante ni mooy place publique bi mën naa doon rek loo xamante ni dana jëriñ askan wi waaye it di générer li nga xamante ni moom mooy ay emploi li naqari kee moom naqari jardin public bi mënoon nañ ko bàyyi mu continuer sa gars yi di ci daan doole liñ ci daan daanee doole parce que li ñu fi jëlee ak liñ fi indi baaxu ci dara baaxu ci bu guddi jotee affaire banditisme moo fi am lu nekk fi am dañ fi agressé lépp lañ fi def amoon na dans temps dañ fi daan def ay ñaawteef te loolu ñaaw na. non jardin public am na solo waaye li ñu ko defee nii amul sax bañ nañ ko ba am nañ équipe boo xam ne ñoo koy nettoyé ah waaye li ñu li ñu li taxoon santé publique bi jóg defuñu ko. place publique bi moom wax dëgg liñ ko defee woon moom ak li ko nit ñi defee du benn ndax place publique bi salté na agresseurs yi ñu ngi fi nekk guddi góor jigéen ñi ñu ngi fi nekk guddi fii salté na ñun ñu fiy jaay sax li ñu fiy jaay ñàkk pexe rek moo ñu fi bàyyi. amuñ fenn foo xam ne mën nañ faa toog jaay daal suñu dool yóbbu suñu njaboot moo ñu bàyyi fii waaye salté gi mu salté moom euh, amut fu mu xale yu ndaw yi nag dañuy jaar ci biir waaye balaa 6 heures ñu dem seen yoon lan moo koy waral. seni morom lañ fay fekk wala ñu leen xawa mak ño xamanteni dal li ñi def moy di carte xaalis ak li nga xamanteni euh, mom mo jëmit ci borom ñetti xop yi nga xamne dañ fay ne way ci wenen fan aussi li nga xamanteni moy jeu yi nga xamne da fay am jeu yëpp nak xétu carte xaalis la ba tax na léeg-léeg mu am ci ay xeex ay jappante yo xamne yu doy war ba rek nak ñom ñu gañan waaw sa république bi de ñun ñofi nek ñun man ma géré fi sore toilette diko xol ndax fi man guddii bëccëg maa ngi fi

hôpital bi nga gis ni chaque jour mang fi contrôler le di contrôler le ni même tay suma togon fi tay ma gis kuy nek fi di jël poste jambour wala ngay keuf portable jambour damay dem dal sa kaw ba yakar na ñi ñep war na séré bi ne jullu gi ñaari fan a fi dess fi la fekk ben way fa man taxaw di dak sareti ben way ñew fokati téléphone fi sama kanam ma gis ko ma daw ñew ba fi ci rompay bi pere sa ko dox ko ginnaaw ki andal àndal daw ñu lan la man ko téléphone am la jël mo ne mu génne téléphone bi jox ma ma jox borom téléphone borom téléphone bi dem ci naka la buñ ko mënee defaraat ñu defaraat ko tal lampi yi bangi penturaat ko ñu ay garagne tak ko fi des fois damay tok ba càgg fi ñu julee sax goor jigen dug fi fi ni ñu ñuy ni goor jigen dug fi fi ni ñu ñuy ni bima fi mujjé këbal goor jigen yagul man yow xam nga ma yow wala dug fi ah, tok rek te tok bobu non bu yagge man nandi man fi jamono yu bari man ma fi nek man dara situation bi waaw bu fekkente ne mën naa nekk moom mu jàppale lañu andi fi ay éléments ay policiers yoo xamante ni bu 5 heures jotee bu suba jotee am ñu fi monté bu seen heure wàcc jotee ñu dem beneen heure bi bu jotee ñeneen ñëw fi di régler circulation bi fii mooy tax fii ndax fii am na yenn heure yoo xamante ni nii oto du dem oto du dikk. waaye xale yu ndaw yi nekk en vacances ñoom seen bopp daal ginnaaw bañ fa jaaree ñoom yëkkati nañu ay kaddu jëmale ko ci autorité yi xale yi lii la ñu wax. la république ñun ñoo ko moom la république ñun ñoo ko moom.